fi teew Babacar ndax budul won ñom li du am jigen yi jangen jëf ben bes masna joge mes nit japp sama loxo neena def ma gënt neena yola ñu ni Françoise Françoise yow la yow la def na na bes bi tay la nit dina gis nit mu yag lool mais tay gor bobu bama ko waxe def na ñaari at mais bes bi tay la Babacar wax de weddi gis bokk ci ne woon naa la keroog ba nga ma wooyee ci sa biro nee naa la kayit lay wax su ma defee kayit yi ba pare ma soog la ne moo say pare naa ba may wax keroog dam la ne pare naa kayit yaa ngi ne fii maa ngi ci 200 personnes ndax 160 personnes laa la wax ñoo nekk ci avec yi ma doll ci jeunesse bi bi ma sog a jot démb te jeunesse bi. ñenn ñi ñu ngi fii mais ni nga ñëwee jàppoon nañ ko la cinq mënul nekk boobu ñu ngi woon fi mais instant bi ñu ngi école man nag ne ngeen mën présenté wax ngeen tur bi sànq maa ngi tudd Françoise Mbengue madame njoon monsieur Augustin mi ma may doole ma taxaw fii tey maa ngi koy gërëm di ko sant yàlla mu gudd fan ba mu fekkee njëriñu doomam ndax sama borom kër Babacar Pascal mi xam na ko bu baax a baax moo ma dooleel yi sasma ma ma xuus fekk si ko di gërëm wali ma yoon bi saa yi ma ko wooye mu ne ma madame Ndione maa ngi lu xew ma wax ko mu amul borom problème haral ma woo Babacar Pascal direct mu jox ma Babacar Pascal séeréer nga ngay gor nga fekk si gor yi ndax yow oyof sa oyof moo ma tax man defoon naa politique fukki at ba ma nekkee njaareem ma ñëw ba ko mais yow mayaat nga ma doole pour ma xuusaat xëj na maa koy def maa ngi koy def saa ñii xamuñu ko juróom-ñaari at laa def ci dëkk bi ba ma ñëwee nag ñu ngi gis nit ñi di ñëw gërëm nañu Augustin Tine moom mi nga xam ne dëkk bi fàttuwu ko def na ci lu baax mais comme dara doyagul dara du mët ñun jigéen ñi rek toujours ñu ngi laaj suñu jëkkër yi dépense ñu bëgg yow li Augustin tàmbali mu des ñan nañu yàlla nga eggali ko te ñu yaakaar naa ne di nga ko eggali doléance yi nag jàll na duma ci jaaraat jigéen yaa ngi nii ay jàmbaar lañu yenn say damay gis jigéenu Pekook sama yaram daw fajar 6 heures du matin jóg nañu ñu jël sen brade instant bi ni togay bi tong nañu sen café bi ñu jaay suba are defar nañu sen beñe yi pan yi 6 heures du matin xey nañu jël nañu pan yi wara dem jëndi jën Babacar talal na la loxo nga dimbalal ma jigen ni jigen bu ata xala yaangi ni ko géré waxé jang nañu am nañu sen diplôme licence yaangi ni tok fi fii te jàpp ñu ci dara ma bëgg nga gestu ci Gara neena sank ñu defal len avec financement ma xale yi ñu liggey ñu tedd seen yaay yi nga dolil yaay yi ndax ben yaay watul leralal ma dekk bi ndax enlèvement baa fi degg nga ko ben yaay instant bi fi mu tok ya tax ñu tok mais heure bi fekk ñun ñëpp dugg nañu suñu nekk ndax ñu kenn enlever ñu babakar Pascal jigen ñi ñi jara jappalé la ndax neena gor rek lay defantal ñom gor lañu maangi and ak ñom ma bëgg fekk ci gor leen ma tableau be ay xali yu tuti di def b 6e ño def de tout cœur avec Babacar Pascal John jappal ñu japp ñu and jappale Macky Sall amna sank gi soko xali tuti yaay yaangi ni tok xala yoyu dem ba be leg lek ñu ñu rek dem len nawone ne ñew ñom ñay japp bëgg naa xale yooyu yal nañu tekki ba ñu teral seen man defe naa ne wax bi duñ ci sori yow dangaa ñëw paykuuk pour dàppalal jigéen ñi ah gu magumati ci làmb ji de gu ma ci verdict bi balaa ma am verdict ak yow mooy suma xol sedd ci dëkk bi ñoom ñii seen xol sedd ci dëkk bi lu seen xol bu seddee ànd naa ak ñoom ne woon nga ma keroog oto bu bees tak ngay jël bëggoo oto bu paan boo déparé directement pale te na la yàlla may oto boobu nga yëpp ñu ñun ñëpp du paan ñu départ directement ci Abacar Pascal John naa nga delluwaat gaaw kayit nga ma laajoon ñu ngi nii ma ne la ñu yóbbu la kayit yi nga ne yow yay indi bul yóbbu kayit yi may ñëw jël ci kayit yi ndax gor yi nga xam ne jël nañu seen tur bind ko ci kayit yi te xamuma leen laajte carte d'identité laajte eh, eh, eh, numéro électeur jafé lol ci jamono bi gor yi yep ñu bari joxé nañ ko ñu joxewul sax def ci nañ ma fan yi ñu joxé ko kon ñu jara défar la te dafa am lima digal ak yow kayit récépissé bi registre de commerce né nga ding ma ko may jigen yang ni ma bëggat bo paré ding ci jaarat ndax loma wax jotali na len ko nga def ko ba mu baax financement ñew ci dëkk bi ci ñom financement ñew ci dom yi jëkkër yi soxla nañ ko dëkk bi yëpp soxla nañ ko gis nga jàng baa ngi nii nee nañu sànq bi amu fi Babacar Pascal mi def na juróom benn junni ca daaw ba ñu demee Nimzaat ñetti junni ñu indi ko jàkk ko fay-fay muy juróomi saako ciment sànq normalement asan laa bàyyoon pour ma wax ko mais comme eggu fa woon ma jottali ñu joxaat ñetti junni mu dem bee nekk euh, bu paa ndaw loolu daaw ba ñu demee Numzat yóbbal boobu la ñu joxoon ñu indi ko pi payku tàmbale nañu nag bu doon bëccëg tey di nga dugg ci jàkka yooyu dara sotteegul ñu la ciy xaar loo ci mën jàngu baa ngi nii ay ban la ñu sonn jigéen yaa ngi ni cotiser nañu cotiser cotiser bi amatuñu labbe baa ngi nii nang ñu dollil li des ci ban boo ñu ko mënee dimbali jon na teg nañ ko sa loxo mbooloo mi foofu laa yemagum ngeen baal ma ak Luma waxul tay ngeen baal ma ak wax dafa metti ci mbolo yaakar nañu ci babakar Pascal babakar Pascal yaakar na ci yeen ku ngeen andal ku ngeen andal ku ngeen andal ku ngeen àndal ku ngeen andal fu ñuy jëm fu ñuy jëm balé fu ñuy jëm balé fu jëm merci beaucoup waaw jaajëf mbokk pay ko tay sama xol dafa sedd won ngeen ma ni man ak yéen ñoo bokk man séréer laa ni yéen moo tax li ngeen di tëgg yépp sama xel dafa dellu ci cosaan ma am mbégte lool ah mbooloom tey bii wax dëgg yàlla dama ci am mbégte

borom kër yi teew jeunes yi teew mais surtout jigéen ñi teew loolu dama ci kontaan bu baax tey nag dama bëgg li ma leen di wax ngeen fasal ma ko te téye ko man duma homme politique boo xam ni damay wër di digle wala di wax loo xam ni su ma fi jógee fàtte ko Françoise bi nga ñëwee sama bureau ñu waxtaan booba am na fu ñu daje ñu boole ñu nga ñëw bureau ñu waxtaan ñu woola ci sunu ay ndaje nga def délégation ñëw nga jël parole ba nga waxee ba pare ci laa woo sama staff man leen ku jigéen kii ku jara àndal la parce que ku wax feeñ ci sa kàddu ma gis ci dëggu gis ci fulla gis ci ku bëgg boppam ku bëgg dëkkam ku bëgg ay mbokam looloo tax ma téye la mu tax bis bi dañu la bàyyi yaa ko jàpp te beneen bis boo jàppoon rek ma fekk si la ci abbé dominique ñu ngi lay nuyu bu baax di la gërëm di la sant ci sa teewaay mënon nga wax ni kilifa nga nga ñew nuyu rek dem da nga nuyo ñaan tok yow mi ku jaxaso sa administré nga té li may wax luma xam la séeréer dafa transcender les religions mbokk gi lañ gëna té loolu fi gis ngeen doon ben catholique ak musulman ku la ci waxul catholique laa wala musulman laa doo ko xam du ñu jote ci seen biir du ñu xuloo du ñu ŋaayoo au contraire dañuy jiital mbokk gi loolu nag màndargay séeréer yi la yeneen ethnie yi wolof yi baal leen ma mais séeréer yi ñoom ñoo bindoo noonu muy Joal muy caajaay muy fii peykuk séeréer muy feneen foo ci dem rek jaxasoo bi benn la te loolu dara mënu ko yàq bi mu nuyoo abbé ba pare dinaa nuyu imaam

maa ngi lay tàllal loxo pour ñun ñëpp ñu ànd liggéey defar peykuk séeréer am naa mbégte lool biñ ma présenté kuréelu jigéen yi fi teew te it ngeen defe ko ni mu gën a rafete kuréel bu ci nekk ak ni mu soloo ak ni muy dikkee ak ni muy woyee ni muy fecce loolu wax dëgg yàlla dafa sedd xol parce dafa wone ni kuréel yi bëri nañ ci dëkk bi mais benn ngeen foofu laay profité d'ailleurs pour tontu doléance bu njëkk bi nga xam ni amal na ma solo trop mu dem ci jigéen ñi Françoise bi nga ñëwee sama bureau nee naa la dinaa la encadrer ba nga am GIE GIE mooy groupement d'intérêt économique groupe jigen bo gis bu amul kayitu GIE yoyu du meuna am financement bu nitkinak ci état nit ki nak boko ko jappalé da nga koy ngemb ba mu deuguer nga soog baye mu dem ci langue ji dem bëri ci ngemb len bokku na ci ma créer condition yi meuna tax financement état bu ñëwé ngeen man ci bok moy GIE bobu lima len di proposer moy don ngeen ñent wala juromi kurel ci quartier bi dama bëgg ngeen boole ci jeune yi parce que dégg naa ki wax ci seen tour wax ni nañu def nag avec pour lima yi li ma bëgg mooy yéen juróomi kuréel yooyu ngeen boole ci jeune yi ngeen former GIE GIE yàlla baax na ñaari service yi ñu koy defaree muy chambre de commerce ak impôt et domaine chambre de commerce sama jigéen moo fa nekk bu ngeen demee moo leen di defal kayit yi su ngeen ñëwee sama bureau man maay eggle li ci des ngeen di am seen kayit GIE boobu dama bëgg ci nu mu gën a gaawee Françoise bu taxaw la ci yow la des dee demee mën ngaa dem seeti madame Sangaré dinaa ko woo nga dem fa mu wax la kayit yi nga war a fournir mu defaral la ko mu ñëw ci sama service ñu enregistré ko mu dem tribunal ñu defar ko nga am sa GIE ma bëgg nag. boo amee boo amee GIE bi ba pare xaalis bi ma leen di may tey parce que man nag fu ma dem lu ñu ma wax la ma ca man dama koy def ci saasi. animation bi am na solo mais waxtaan bi ak dégluwante. Mo ëpp solo parce que man fi ma bëgg jëm ak peykuug séeréer dama bëgg mu sori motax motax ma bëgg ngeen dégluma bu baax man né na leen fuma dem ñu diis ma lo xamni amna luma ca man lama ca man dama koy def ci sas manam duma responsable politique bo xamni damay dige xam nga ku dëkk ci diggé yaa ci domaine boo moomul parce que diggé ëllëg la te kenn xamul ëllëg yàlla rek ko xam kon nit ki la waxee loo nga ci dara jéem ko ëllëg nga ànd ak yéene bëgg a def lu ëpp la nga defoon man fonctionner donc euh, Françoise wax la li nga pour GIE bobu bu kayit bi génné dama bëgg nga and ak trésorière bi ma bolé len ak ben banque ngén ubi fa compte bancaire xaliss bi ma len di jox tay ngén duggal ko ci bu ko defee mu nekk fonds bi nga xamni mom ngén di déparé commencer di ci gëna a ci sen biir tey bala ma fay jóge dina len jox une subvention de 400000 donc euh, boo gisee ma ni leen dinaa leen jox subvention quatre cent mille quatre cent mille mooy juróom-ñett fukki junni su ma leen ko joxee ah sama mbokku góor ñi bëgg naa leen trop mais loolu joxewuma ko pour ñu jënd ko ay ginaar togg ci ay reer jënd ci ay boisson loolu après lay ñëw. lii dañu ko joxe pour ngeen tàmbali liggéey parce que nit ki nag di ko may jën di ko jàngal di ñuy nappe moo gën te man ku ma àndal dama lay teg ci yoon woo xam ni moo lay jëriñ ëllëg duma ma man tout le temps ci am soxla nga diis ma ma jéem koo faj dama ko mënul sax waaye mën na maa dajale li ma am jox leen ko ngeen góor góorlu dem liggéey comme ñëpp ndokk nag ba nga xamee ni fii ci peyku séeréer ay jigéenu liggéeykat rek fi ne fajar yéen a njëkk a yeewu ñii yore siwo ngeen dem liggéey ba ngoon ngeen soog a ñibbisi loolu ku lolu bëgg a jàppale ci loolu la di fekk ngeen rek damay faral di wax ni ki neex a yóbbaale mooy ku ba taxaw ci waye ku nek ci lalam di nelew te di la wax nak ma yobale koku dalay tardel yen fek nañ len ngeen solo ba taxaw ci talibi ku len yobale rek ngeen di xaar Françoise lama la waxoon dama la ni man du auto bu pan bu ñuy pousse man tak bàyyi la fa man auto bu bes pour la yur di wot ñu ci yek ñu and dem fi ñi dem yaangi deg bu loolu jalle amna ay doléance yu bari yu ma fi dégg dina am yo xamni dina ci jëm li ma man mais dina am yo xamni dina len wax ay lay yewen managuma ci lolu lu bari parce que nit nak wax da ngay wax deug man rusna euleug ma jakarlo ak yeen ñu ne babakar mi mo ñewon ci ñun wax ñu dina indi poto lampe fi dina ci ndox mi fi té lolu nekkul sama responsabilité lolu il faut mu lère wax ngeen ma problème courant bi courant dëgg la état moo yor politique éclairage mais da ko jaarale ci commune yi maire bi nga xam ni moom moom fii ci budget bi nga xam ni moom lay saytu te budget bi ci yéen lay jóge maire boobu moo am responsabilité indi leen courant ci seen quartier bu ko defee moom la war bu ko deful moom la war la ma leen mën a wax nag mooy man ak ñi ma àndal muy mouvement Dolil Macky dëgg la ñu ngi jëm ci élection pour fal président de la république loolu mooy sunu objectif principal dinaa ci ñëwaat léegi mais bu élection yooyu passé buñ ci tegee ay weer dinañ def élection pour fal ay maire foofa nag ngeen mën a faje yéen li leen neex wala leen naqari ki nek sen maire bu ngeen gisee ni liggéey na pour yeen ngeen falat ko su ngeen gisee ni pour yeen ngeen fal kenen? ci problème ndox bi ak problème courant bi lolou la ci meuna wax parce que buma fi taxawé ne len bu subat na indi ñaar fukki poto lampe té nekuma responsable Senelec nekuma DG Senelec yoruma maire bi len di euh, gérer kon xam ngeen ni dama len ni nax waaye li ma man daal mooy yéen jigéen ñi dinaa leen encadré dinaa fexe ba ngeen am GIE dinaa leen jox subvention boo xam di ngeen démarrer seen liggéey jumaa ji ñu ma fi wax ak église bi dinaa jox église bi cinquante mille jox jumaa bi cinquante mille muy cent mille ngeen jënd ciment def ko ci du ko eggali waye joxe na participation defé na nak ki yoré saretu mbam di la ci tek di la bis bu garé kat kat dula la segem nak wax ngeen ma sen doléance muy jàppale jigen ñi muy góorgóorlu ci mosquée bi ak ci juma ji ma def ci lima ci man te sama gul bu sama katan bare xam ngeen ni seen soxla dina ko fajj ASC bi dina len jox jeu de Mayo. wax ngeen ma affaireu emploi des jeunes manam xalé yi jang nañ ñi jang nañ métier ba mokal ko ñi jàng nañu école ba am baccalauréat am licence am maîtrise te amuñu liggéey foofu la ma cay wax mooy réewu Sénégal taxawal ni fi ay kuréel yu bëri yoo xam ne dañoo war a jàppale jeunesse bi il il y de cela six mois convoqué nañu fii benn séminaire convoqué ay jeunes pour wax leen fi ñu war a mën a jaar ba am ay financement li ma bëgg nag mooy jeunes yi nañ leen recenser comme ni nga def nañ ma recenser jeunes yëpp kenn ku nekk diplôme ba nga am ñu ñu bind ko kenn ku nekk métier ba nga mokkal ñu bind ko waxuma ne dinaa leen wutal liggéey parce que wax day leer waaye dinaa ci jéem la ma ca man dinaa leen booleeg projet yi nga xam ni ñooy financer jeunes yi loolu moom mën naa ko te danaa ko def incha allah donc ci emploi des jeunes loolu laa ci mën a wax wax ngeen ma terrain pour ayse bi mbirum suuf mooy sama liggéey bu ngeen gisee terrain boo xam ni mën ngeen di fa entraîné wu ñëw leen ma boo leen ak kadas mu defal leen extrait de plan ngeen ñëw sama bureau ma jéem ko régulariser tout turu ASC bi lii ma wax nii nag. ngeen may ma tuuti ngeen may ma tuuti lii ma wax nii ngeen mayee tuuti lii ma wax nii mooy li nga xam ni moom laa leen manal ci ànd bii nga xam ni muy ngi soog a juddu ma bëgg nag ngeen déglu ma ma wax leen nag li may xaar ci yéen parce que affaire bi nag rokk mi rokk la affaire bi du du jappalé rek yem ci mais jappalanté la wax leen mané jappalanté la voilà comme jappalanté la nak déglu leen ma wax leen limay xaar ci yeen li ci jitu moy man politique bi may def dama sos ben kurel bu tudd mouvement Dolil maki mouvement Dolil maki Manam damay dox 17 ño xamni andu ni ànduñu ak Macky Sall waye gëm nañ ma wolu nañ ma am nañ yaakar ci man ma waxtaan ak ñom bañu nanguma fekk ci ñu ñun dem dolel Macky Sall loolu motax ma sos kuréel bi ñu tuddee mouvement dolil Macky mouvement bobu nak bama ko sosé dem waxtaan ak kilifa yi nek APR fi ci département bi ma jukki ci sama xarit sama wëlëre te ngeen tudd ko léegi muy le docteur Augustin Tine mi nga xamni mi nga xamni ni mbok la seen dëkkandoo la séeréer le comme yéen nit ku franc la ku sincère la man nit ku ma naw la motax makoy féliciter ci liggéey bi nga xamni mi ngi koy def ci département de Thiès di nuyu responsable APR yëpp yi nek ci commune Thiès parce que nak nit ki bo bëggee and ak mom ngeen liggéey da ngeen di sék jàmm da ngeen di yénenté lu baax man xëccëw ma ci ñom xëccëw ma ak ñom dara dama ñëw rek pour yok liggéey bi nga xamni ñom ñu ngi koy defal Macky Sall kon nag li ma war mooy ma déggoo ak ñoom ma doon ak ñoom benn ñu yëkkateendoo di tegandoo li may xaar ci yéen nag mooy saa yu ma wootee tey Françoise yéen payku séeréer bu leen fa kenn jiitu su ma xewlee tey ba woote buleen fa kenn jiitu te bu leen benn mbooloo gën a bari parce que nag responsable politique li koy sagal li koy sagal mooy saa yu wootee comme ni ngeen def ni tey mbooloo mi ñëw ku ñëw pay ku séeréer tey di nga xam ni mouvement Doolil Macky am na fi doole taxaw na fi samp nañ ko fi mu dëgër ma bëgg nag saa yu ñu xewle woo leen na ñëw te bu ngeen ñëwee na ngeen toog ba mu jeex ngeen soog ñibbi parce que nag responsable politique sagal ko bokk na ci bu la woowee woo ay nawleem nga toog 30 minutes 40 minutes daal di ñibbi te waxtaan wa jeexul kooku dañu naan kii yëguñu ko dafa jënd ñi ñëwoon rek waaye moomu leen mais bu ngeen defee comme nii ngeen def nii toog ba yëf yi jeex ngeen soog a ñibbi dinañ xam ni mbooloo mii mbooloom responsable bi waxna len ni Macky Sall moma ma tax a lay jàppale té xam ngeen ni février 2019 le 24 février 2019 Sénégal dina organiser ay élections pour fal ab président de la République Macky Sall mi ñu andal mom candidat la ci élection yoyu ma bëgg nag wa pay Peykook séeréer ku ci am sa carte électeur denc ko bu baax bu ko jox kenn. ku ci kart, carte wala ko xamni yaangi tollu ci âge bindu commission yaangi actuellement ngeen dem bindu pour am sen carte électeur bu bis ba ngeen wotel président Macky Sall mu meuna yorat Sénégal juroomi at lolu lolu lay xaar ci yeen lolu lay xaar ci yeen buñu falaté président Macky Sall ñu and ak mom liggéey buñ ci tegee ay weer ñu dem ci élection locale pour fal ay maire bu boobaa nag balaa booba dinaa dellusiwaat fii waxtaan ak yéen ci ni ma ko xalaate ak ci ni ma ko bëggee ba bu ñu sampee maire fii mu doon maire boo xam ne dafay liggéey pays ku séeréer defar ko problème mu courant dootu fi am problème mu ndox dootu fi am mais loolu waxam teel na dama bëgg ngeen déglu ma li ma amal solo Moy élection présidentielle yi di ñew ngeen fagaru Don Ben, Don Ben tak dem woteel Macky Sall ndax mu mëna gagner ties fi lolu mom lay sentu ci yeen and bi nak yalla na don and bu sax dak yalla na don and bo xamni ni naxante wuñu yalla na don and bo xamni ni bu deggu la man mi dey kuma ma may wax nga xol ma di nga xamni ki limi wax ci xolam lay joge man ay tapale anduma ci ay wax lu dul deug anduma ci duma ray nit duma wax nit lu ko neex ngir am li ma bëgg ci mom dedet dama lay wax deug yo xamni ci lañ mëna jaar pour and and bi mëna sax and bi yag yi kaddu dal la len andi lon yeen wa pay Paykook séeréer di len sante bu baax di len gërëm defena lima len wara jox suma ko limé mu tollu ci 400000 subvention jigen ñi ak 100000 francs mosquée bi ak église bi muy 500000 Françoise damaa bëgg yow nga ànd ak curé bi bu ñu tasee ngeen ñëw fii ci oto bi ma jox leen ko bu ko defee ngeen defee ko ni ñu ko waxee problème mu GIE bi ngeen doxee ko ni ñu ko waxee nii vraiment kontaan naa bu baax sama xol sedd na. jeu de maillot maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant bu baax jeu de maillot bi à partir de demain euh, président ASC bu ñëwee bureau dina ko boole koo xam moo ko ko jox. donc euh, comme mi ngi bëgg a guddi te jigéen ñi yàgg nañ fi di xaar wax dëgg yàlla damaa bëgg ngeen may ñu rek ñu yeewi ñëpp. ñepp ñibi ci jamm ci seeni kër lu buñu amaté lenen dina leen wowat ñu andat comme ni ñu andé mu gëna rafet assalamu alaykum wa rahmatullah jëf